tey dañu daje woon fii doon signé benn convention boo xam ne ñun ak forum de ak secretariat exécutif ñoo ko doon signé. xam ngeen ne déwén bu soobee yàlla buñ ko fekkee ah, ah forum bi dana dajale àddina bi yëpp fii ci Dakar mu nekk forum boo xam ne ci ndox mi la ñuy wax xam ngeen ne ndox moom boo ko amul doo dund eh, problème mu ndox yi ñu am nag wax dëgg yàlla bu forum bi ñëwee fii. ñu booleeg collectivité territoriale yi nekk ci réew mi yëpp ak ñiy ñëw jógee bitim réew ak conseil mondial de l'eau bu ñu ñëwee waxtaan ci problème yi defe naa ne bu forom bi jeexee danañu am ay solution pour régler problème mu ndox xam ngeen ne Dakar am na ndox 70 pour cent consommation ndox Dakar la waaye yeneen dëkk yi am na dëkk yoo xam ne am nañ tuuti problème ndox am nañ problème mu forage yi yooyu yëpp danañ ko waxtaanee ci forom mondial boobu nga xam ne Afrique mu ngi fiy soog a am te Dakar gii lay am bu dul ndox mi itam am na problème assainissement xam nga ne bu taw jotee inondation day bari loolu yëpp bu ñu toogee waxtaan ak suñu ay naatangoo te dañu trouver ay solution yoo xam ne bu forom bi jeexee xëy na bien-être population yi foofu lay jógee ñu am ndox régler problème yi yëpp incha allah xam nga daje bu amee ñëpp dajale fu ci nekk da ngay ñëw indi sa xalaat xalaat yooyu la ñuy dajale ba trouver solution yi nga xam ne problème mu ndox moom dootuñ ko am ak problème mu assainissement te loolu nag am naa ci yaakaar bu yër ndax fu àddina yëpp di daje su ci nekk boo ñëwee wax yow na nga koy doxalee sa dëkk échange yooyu ñuy am danañu dimbale ba dinañu trouver ay solution ci affaire ndox ak assainissement